auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Makhtar Diakhaté mu ngi leen di nuyu mi ngi leen di dalal di ñaan lii nga xamante ni bii tey jii ñu ngi koy def muy sant Serigne Saliou Mbacké yàlla na cant googu wuy ci boroom ba la ca boroom digle ni ku sant ñu dolli la yàlla na ñun ñëpp buñ fi jógee ñu am ci ay ndoneel kon sëñ Matar nee na mi ngi koy tàmbalee ci sëñ Cheikh mi nga xamante ni bii tey jii moom lañuy ñuy xoolee sëriñ Saliou Mbacké mu jiite njaboot gi nun ñëpp nu nekk ci ronam mu di saytu di nu sàmm di sunu sakk di sunu sutura di sunu teranga àddina bépp boo nee sëñ Saliou ñu ñeewee la sëñ Cheikh Mbacké cant gii ñu duppee ko sëñ Moustapha Saliou sëñ Moussa Saliou di sunu kilifa di sunu lépp ñépp xam tolluwaayam ci yoonu murit ak bëgg sëñ tubaam tey jii bu fekkee ne am na màndarga munu mën a waxal sëñ Moussa Saliou mooy bëgg sëñ tubaam ak noo mën a toll ak noo mën a xalaate boo ñëwee tudd ci sëriñ tuba rek dana la ca corriger loo nga xamante ni bii yow wii xamoo ndax ak bëggam ci sëriñ Touba dafa amul gu yem di ko yaatal ci njabootu sëñ Saliou gépp rawatina soxna waalo mii nga xam ni mooy sunu lépp féetanu fépp ak njabootam féetanu fépp nee na cant gi bu koy buy sant moom ci ñooñu lay tàmbalee ci njabootu sëriñ Saliou gi yaatal ko ci sëñ Mountakha mi nga xamante ni bii tey jii moom lañuy ñuy xoolee sëriñ Touba ci kaw suuf di ñaan sëñ Mountakha yal na yàlla sa borom ba guddal aw fanam ca wéral ko yal na nu ànd moom lu yàgg yàgg yàgg di liggéeyal sëriñ Touba ba làq mbooloom ngërëmi sëriñ Touba yi ginnaaw loolu nee na dëkkandoo yi. ndax woote bii ñu woote fii ci kër ñu bare bare bu ñu xasee yëg ni sëñ Matar kër sëriñ Matar Jaxate loolu doy na leen doy na leen woote doy na leen carte d'invitation ndax sëñ Matar moo toll noonu ci nit ñi moo toll noonu ci waa kër sëñ Saliou gépp moo toll noonu ci yoonu murit sëñ Matar mii jii boo ànd nag moom dugg ci jumaa yi Tuubaa ji gis kilifa yi lislaam yi ci dëkk bi nga gis fi ñu ko teg da nga xam ni sëñ Matar mii sëñ Saliou Mbacke fàggoon na ko cërub lislaam bu ñëpp mën a teg seen bër mi ngi sant njaboot gi di samp sant njabootu boppam gi ñii ci biir kër gi di sant ñëpp di wax ni moom day sëñ Saliou Diakhaté mii moo ko jaboote mu yor ko mu yem ci ay loxoom di ko xëyal di ko gontal mu joxe woon ko ca daara ja mu ne ba dellusiwaat fii ci kër gi mook ay magam ak ay rakam ndax sëñ Matar mii tey jii ci këram gi tey jii la mën a am doom ju ko jot lig satala waaye sëñ Matar ndaka jekk musta am benn doomam boo nga xamante ni bii ba ñi mujj fi mu nekk nii boo demaan ca daara yi sëñ Cheikh Mbacke Dieye da nga leen fa fekk maa ngi koo koy nittali ni ko bërki dem damaa dem ci sëñ Cheikh maam Cheikh ki nga ki mu tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall fekk ma fa ni ma bàyyi biraan kat ma nekk ca jàkkee sëñ Saliou mu ñëw ci man ni ma bàyyi biraan léegi fee ca jumaa ja la ñuy jullee waxtu yu juróom man ko yaay mun ma maay cheikh maay maay maam cheikhum sëñ Matar Jaxate ma génn dem julli yi ba ma ñëwee loolu rëy na fi man rëy goon xamante ni bii ba ma ñëwee nettali naa ko sëñ Matar mu ngi sant ñëpp nag mu ngi leen di gërëm ca di leen balwaat ndax suñuy gan ngeen gan moomu bu ñëwee ci yow loo mën ci teraanga na nga ko teral loo mën ci defal ko na nga ko defal kon sunuy gan nanu yéen nag yéen itam ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm waaye noo ngi ànd ak yéen nag ci loolu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Sall mi nga xam ne moo woote ak ñi ko jàppale ci liggéey bi bépp nag loola duñ ci lim kenn ndax liggéey bu day nii ku ko yëkkati ci kenn nit ku ko yëkkati ku ne am na ñu la ca jàppale ñoo ñu ko jàppale ñëpp nag sëñ Matar nee na kenn ump ko ci waaye mi ngi ñaan moom ñaan rek lam mi ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni moo am ndimbal yàlla na yàlla sama borom ba boo leen yàlla na yàlla sama borom ba boo gërëm incha allah jërë leen def asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mboolem ku fi toog di jiital ci nuyoo bi sunu baay Maxtaar Jaxate di ko jox yéeguwaayam bu baax a baax Touba nag ku fi ñëw. sooy nuyoo di nga jël nuyoo bi teg ko ci Serigne Mountakha Mbacké mi fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha sunuy kàddu nag du bari ndax ñu bari xamee wuñ wax waaye dafa am bés yoo xam ne su jotee ku waxul rek da ngay nduru muuma Saliou ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ci sa kanamu mbokk yi di rafetlu suñu taxawaay fii di rafetlu it kilifa gi nga xam ne moo ñu yónni muy Samuel Ahmed Sarr nga xam ni fu ñu teew ku ñu xool gis ci ñun Samuel Ahmed Sarr tey nag kàddu cant lay nekk Saliou Samuel daf ñoo yónni tey ci yow yónni ñu ci waa Touba minikaar ñu ngi lay nuyu Samuel Ahmed Sarr mu ne suñu ñëwee ba ci kër gi Baye Makhtar nañu jël nuyoo gi ak ngërëm li teg ko sa loxo nga jàllale ko njaboot gi yëpp Samuel nee na amul sa fay mu ngi lay sant ngir jëmmi sëriñ Salim buñ jàllee ci loolu nag tey dañoo bëgg a dugg tuuti ci Samuel Ahmed Sarr ndax politique indiwuñu fi waaye dañu bëgg waxtaanee taalibe sëriñ Salim bi muy Samuel kenn mënu ko lagan kenn mënu ko ci kër sëriñ Salim kenn mënu ko ci jullit ñi. kenn mënu ko ci tabaski kenn mënu ko ci korité te lépp lu muy def sutura la koy defal lu amul sutura Samuel Ahmed Sarr du ci dugg dama ne nit ñi dañuy saraxe Samuel Ahmed Sarr day dimbale ñun nag ay tànkam lañu ay bëtam lañu waaye Maxtaar ñu ngi ñaan ci jëmmi sëriñ Saliou Mbacke ngeen gën a ñaanal Samuel yàlla bàyyi koog doomam ji bàyyi koog doomam jee di xaadim bàyyi koog doomam ji di minikaar bàyyi koog doomam jii yépp nga xam ni ñoo boole délégation bi ñëw man nag maa bett sax sama kàddu waaye mënuma woon ñàkk wax ndax luñ ma boole ci Samuel maa ngi ci luñ ma boolewul nekkuma ci mbokki Touba ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen yéeguwaay di leen baalu àq te di leen baal kàddu yi Samuel A Sarr lañ doon indi muy ngërëm ak cant di ñaan balay déwén lu fi waay indi luy jàngoro sunu borom saafara ko ku fi indi loo xam ne xat-xat la suñu borom yaatal ko xaadim maa ngi lay nuyu di leen jox yéen ñëpp seen yéeguwaay ma jox sunu xarit sunu doomu ndey mu gàttal ndax mu te ñàkk bañ sàdd ay kàddu wasalaam. salaamualeykum mbokki Touba sëriñ Makhtar Diakhaté ñoo ngi lay nuyu di la jox. nuyoo suñu kilifa le président Samuel Sarr mu Serigne Saliou Mbacké di la jox nuyoo délégation bi ñu àndal nga joxal ñu ko le xalif général des murit Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te ànd ak wér di nuyu buntu suñu kilifa ci sëriñ Saliou Mbacké muy sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou Mbacké di nuyu sëriñ Saliou jaxate mi nga xamante ni bis bi mooy ki ko woote di ci sant sëriñ Moustapha Saliou Mbacké mi nga xam ni mooy buntam ci sëriñ Saliou sëriñ Saliou jaxate ñoo ngi lay jottali cant ak ngërëm bu suñu kilifa le président Samuel Sarr mu Serigne Saliou Mbacké di ko seddeel sa waajur wi toog muy Alaaji maxtar Jaxate di ko wax ni Serigne Saliou mii nga xam ni moo topp ci gannaawam nekk fii ci Touba bokk ak moom liggéey bi mu nekk ci kër sëriñ Saliou Mbacké mais aussi di sonn ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ni moom la président Samuel Sarr am fii ci Sénégal rawatina ci dëkk bii nga xam ni fi la nekk mooy Touba kon Serigne Saliou loolu nga nekk président Samuel Sarr nee na foo taxaw jëmmam nga fa taxawee waaye liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def mu ngi la ciy sant di la ci gërëm di wax ka ni lépp loo xam ne yaa ngi koy yëngatu ngir nit ñi mën a yokk ci seen dund sur le plan politique loo nekk suba ba ca ngoon dina la ci jàppale kon nag bis bi tey li ñu fi gis dal na suñu xel li ñu fi gis wane na ni sëriñ Saliou jaxate mook waa Touba am na benn relation de confiance boo xam ne nii am na ko fi kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di seedewaat ci kanamu sa waajur bii di Serigne maxtar Diakhaté que ni Serigne Saliou Diakhaté président Samuel Sarr mu ngi koy sant di ko gërëm di wax ka ni lépp lu mu nekk ñoo ngi ciy ànd ak moom ñoo ngi leen di sant di leen wax ka ni kontaan nañu ndax kat li ngeen fi wane dal na suñu xel jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Makhtar Diakhaté ak turu sëriñ Birane Gaye mii ak sëriñ Bara Dem ak Ndaw mi nga xamante ne gis naa ko léegi mu ñëw di sama Serigne ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ci ak Serigne Abdou Lahad Diakhaté ak ba ci Serigne jaxate Diakhaté mii nga xamante ni lépp moom la ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di sëriñ Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ni nii mooy suñu tey ak ëllëg rafetlu lool jotaayam rafetlu lool kanamam rafetlu lool kersam ak bëgg Serigne Touba ak yërmande ñu ñaanoo ko yàlla may ko fan bu gudd ak wér yaram wax ji nag du sori ndax li tax du sori sëñ Birane dafa wax ba noppi seen Birane bu waxee ba noppi dootuma am droit wax kenn waratul wax li ci des lépp jàng alxuraan la ak xasaay su maxtaar nee na sëriñ Saliou Diakhaté lii nga xamante ne maa ngi koy woote te sëriñ Saliou Mbacké rek tax ak sëñ Moussa Fall Saliou di ñaanal yàlla bu baax sëñ Cheikh Saliou yàgg fi lool tamit ndax njaboot sëriñ Saliou Mbacké de kenn ku ne xam na sëñ Saliou Mbacké li mu ñu defal ndax njabootam gisoo kenn benn njabootam boo xam ne ni gis ngeen ko mu dugg ci lu mu war a dugg wala muy wax lu mu war a wax wala muy nekk fu mu war a nekk amul ki ci gën a ndaw nag kii ci gën a ndaw ba kii ci gën a mag ndax sëriñ Saliou Mbacké bi boo boo seetee ni mu ñu yare ak ni mu ñu def ak li mu ñu defal muy loo xamante ni nii boo dee seet Sénégal ba Sénégal jeex moom la Sénégal waaye àdduna doo ko gis ndax jannatu ma waa gii sëñ Maxtaar ñu ngi may yóbbante sax di wax yéen ma ne di nga xam da ko am ci nit ñi ndax jannatu rëy na mooy pàkk bi nga xam daanaka lu lu lu mujjee lu mujj la ci Touba waaye boo ko seetee dafa mel ni moom moo dëkk ci Touba ndax xale yi fi nekk waroon a nekk ci leneen jigéen ñi waroon a nekk ci leneen waaye ñoom ñëpp ci jaamu yàlla lañ nekk ak wax ju rafet ak dugg fu ñu war a dugg ak moytu ndax Sénégal gi moytu ndax moo mooy rëcculoo nit ndax mel na noo xamante ni nii amul benn dëkk boo xamante ni nii am na sécurité sécurité boo xamante ni nii am na Sénégal ndax Sénégal amul garde amuñu fi nekk di di di seet nit ñi ak ñuy wër guddi te jàmm rek moo fi nekk. kon loolu sëriñ bi la nee na euh, sëriñ bi ci boppam da dawal koo xamante ni kenn da ko ko wax njabootam boo seetee ñoom ñëpp ñu ngi ci àll bi liggéey moo leen gënal loo gis ci àdduna jàng alxuraan moo leen gënal loo gis ci àdduna jàng xaseet moo leen gënal loo ci àdduna ba tax na loolu mel na melokaan boo xamante ci ñun ci xale yi ak ci jigéen ñi moom nañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax nee na tam ñu bàyyi xel ci yàlla suñu borom ndax rawatina jigéen ñi ndax yéen de yéen a ngi ren bu dëkk boo xamante ne bu seen bu ngeen bu seen lépp seen bu baax kon seenu sant yàlla ak seenu liggéey ak seenu farlu ak seen sutura ak seen melokaan lu ngeen def rek doy ndax lu baax. amul lenn loo xamante ni def di ko def ba ba mu doy kon nee na la ngeen gën a góorgóorlu bu baax ci jàmm yàlla te fonk bu baax seen borom kër yi te fonk seen waajur yi te fonk waa te waa dëkk bi ndax képp koo xamante ni gis ngeen ko muy mag di ndaw ak ku mën a doon jox ko yitte bi ma sëkk ak sutura saagal ko ba nga xam ni lii doo dem fenn ba gis ko fudul Touba. te dañuy dëkk boo xamante ne nii lépp loo fi bëgg yàlla dana ko defal ndax Serigne tuubaa moom mel noonu loo fi bëgg rek te lu baax yàlla dana ko defal kon nag yàlla nañ yàlla musal ci lépp loo xamante ni ñu waruñu ko def te waruñu ci doon dugg te waruñu ko sax xalaat yàlla nañ ci yàlla musal. suñu waxtaan nee na euh, euh, sëñ Saliou Diakhaté yow de def nga loo xamante ni nii ak melokaan boo xamante ni nii fi nga tegu. ñu nga ci sant bu baax ndax mënoon nañ daa gis leneen wala nga tal leneen wala nga dugg ci leneen waaye sa Pastef fi yëpp sëriñ bi la li li la sëriñ bi yar ba pare tudde la ko moo indi bii jikko di di sant bu baax say mag tàmbale ko sëñ seexu naa jaxate ba ci gën a ba ci ki ci gën a ndaw xam naa lim bi day métti ndax doo boo seetee tam ni salay bii fi nekk di Adama di koo xamante ni lépp lu suñu maxtaan rek mi ngi ci suba ba ngoon moom ak rakam boo limee rek dañuy juum moom ak rakam ak ñëpp koo xam ne topp na ci ginnaawam ba ci soxna Afsa Ba ah ak soxna Fatmata Samb mi kon duma lim ñu ngi leen di sant bu baax di rafetlu seen nekkeen ak seen liggéey di leen ñaanal yàlla may leen fanu ak wér gu am Euh, sëñ Modou Diagne nag yéen waa Kër Samuel Sarr li nga wax lépp lool la li nga wax lépp loolu la amul dem ci ñoom ndax sëñ Samuel li fi nekk ci ministre bari na de kenn xamul nu mu toll. li nekk ci ministre Sénégal kenn xamul nu mu toll waaye nag Serigne Saliou sas na ko sas goo xamante ni nii sas bi dafa yàgg te li muy ñëw fii yéen ñii yéen ñii fi ñëw xale yu tuuti ngeen bi Samuel di ñëw di ràngu di bañ soldat yi ci dëkk bi di ràng ci kanamu sëriñ di joxe addiyaam muy loo xamante ne nii loolu du ñëpp a ko mën a def ba tey jii mi ngi ci liggéeyam lépp loo xamante ni sàn sëñ Saloum sëñ Cheikh Saloum bëgg na ko lépp loo xamante ni sëñ Saloum Mbacké bëgg na ko sam mi ngi ci. kon sëñ Matar mi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen ñaanal wér gu yaram ak fan gudd te di ñaan ñu gën a bàyyi xel ci dëkk bi sëñ sa sëñ Moustapha li mu bëgg ci dëkk bi. nan ko nan ci am farlu am ci gis-gis am ci bëgg-bëgg ndax dëkk bi kat yaatu na yaatu koo xamante ne nii ku ñëw dugg ndax sëñ dëkk sëñ bi moo mel noonu ku bëgg génn génn ko bëgg dugg dugg kon sëñ sa sëñ Maxtaar nee na sëñ Birane sëñ Maxtaar nee na <clears throat> mu ngi leen di sant bu baax sa taxawaay sëñ Birane rafet na lool macha allah yaa ngi sëñ Moussa nee na seen taxawaay bi rafet na lool. ndax sëñ Saalum moo leen boole woon bëkki démb démb tey te dañuy tey tey nii dañuy ba faaw kenn mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen sant di sant jigéen ñi di leen gën a fàttali tam ñu bàyyi xel tout tànk yi parce que nit ñi dañoo bari ay rax ñi dugg ak di génn dafa bëri seen tout tànk yi neen ko bàyyi xel seen i kër yi neen koy bàyyi xel seen néeg yi neen koy tëj ndax benn. gerte bu yàqu moo mën a yàq saaku ba tax na ku ci am problème kenn dootul kenn dootul nelaw kenn dootul yeewu te ni ngeen farlu ci njaboot gi bu baax a baax te nag jiital nag jaamu yàlla bu wér a wér a wér a wér wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. góor gi. maa ngi jéggalu góor gi. waxkat. waxkat. mënta muñ ay ndënd. mënta muñ ay ndënd. bu ñu tuddee délégation Samuel Sarr. ne bu ñu tuddee délégation Samuel Sarr. mu defal ma lu ne Samuel defal ma lu ne ma toog ci baas bi te sànniwu ma ci kàddu su ma ñibbee du baax si man ne président Samuel Sarr buy ñëw fii ak fu mën a dem ci réew mi ne maag président Samuel Sarr nooy am ne minicar mu Sëriñ Sarr yu jërëjëf ne Xaadim Diouf jërëjëf kontaan naa sëñ Matar Jaxate maa ngi lay ziar bi Samuel di former parti. ne bi président Samuel Sarr di former parti. sa kër la njëkkee. ne fii la njëkki sa kër. ne la bu fi sëñ Saliou ne woon. bala maa dem si moom. ci yow laay jaar. nga ñaanal ko. gunge ko. boole koog sa doom sëñ Saliou Diakhaté bi. ne sëñ Saliou Diakhaté ku yàgg ak Samuel yàggal ba muy ànd ak président Samuel Sarr. booba kenn ànd ak Samuel. te la engagé woo. bi ci dooleeku maa ngi nuyu Sëñor Lo moom Baye Moustapha Cissé Lo cër yàllaa koy joxe bala nga am loo naqari da ngay fekkoon cër nga bëggoon nag yaay naju Alaaji Moustapha Cissé Lo naxul ne ma àndaloo naxul ni maaseel waaye bu ma toogee waaye bu ma toogee Xaadim Mbay laa tudd waxkat laa waxkat laa. ku ne xam na ma bu ma toogee ñu joxe délégation Samuel Sarr ñu joxe délégation Samuel Sarr ma ne teg ma ne teg bu subaa ñu seen ma ci télé bi bu subaa ñu seen ma ci télé bi ah, nuyu naa ku fi toog loolu rek jërëjëf Sëñ Saar di la ñaanal cant gi yàlla na ko gën a mën di ziare suñu yaay dama kan moom buñ ko nuyoo rek tudd nañ ñëpp di leen ziare bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee rek cant gi suñ saal bu ma woon ba dem te yëkkatiwuma sax mu doon ak cant ci man ndax man bokk ci kër gi way yi indiwuma fi damaa war a teew ci bis bi moo waral ma jóge tey jii te su ma paree léegi incha allah fa laa ku ne xam ne tey bis bu xatoon la ci ñun waaye sëñ Fallou moo waxoon koy def rek nan la defa tax te sëñ Matar mi de suñu kilifa bëgg nu lool di nu teral saa su ne ak suñu yaay ci kër gi. moo waral teewaay bi kon ñu gàttal ko rek ci lu gàtt mën a dellu ci tey incha allah. sawerkan bi moo jugati ee way koor na binda fi way fi sunu sang bi xam naa ni sax way ku la mooy ee ndax baat bu neex bee yaa ma ko may ni ku fi gën a bëgg Serigne Saliou ee way e ni ku fi gën a bëgg Serigne Saliou ee way jugal taxaw magal sang bee ni ku fi gën a bëgg Sëriñ Saaliw eh, way jugal taxaw magal sang bi bilaay waroon na ma mën a way ba way la man lii ma bëgg a way ndax eer yu neex yi gaa yi di way ñeneen ñi yow lañu ko war a way ku fi way keneen ko dul ki ma way xamal ni way wanil na ci ñay sal jaxal way keneen ko dul ki ma fi man di way ki ya ko may la ko ne bay adi ñaani jëm am na lu ko gën kat. way ko war na la. dafa xeel a xam na ñii dafa jëm yër. kon damay waya. li nga am sa jën ma am sama jën ma. way ko war na la. li nga am sa jën ma am sama jën ma. way ko war na la. li nga am sa jën ma am sama jën ma. way ko war na la. ku nekk fogu ni sa wujj na. waaw kon damay waya. kuy jaay ku nekk ñaan nga jaral. lambun lambun te ñunu yaanu jaral gonde bayi weyal kuy jaay ku nekk ñaan nga jaral ay mbàkke lambun waaw te ñunu yaanu jaral gonde bayi weyal ku fi xewle mbàkke woon ñu fi way ci yow te yaa ko waral waral gonde bayi weyal waa janatu ñu ngi bàyyi seeni nelaw janatu ñu ngi bàyyi seeni nelaw dëkkee jox ma seeni alal ama far ko sant kii ko waral. Cheikh Béthio Thioune la naa ko say jéeli bu nu xamee borom ñi bigal yeeway koor naroo ñu war ko sant nan ñu bañal laa ko dabaay way yaa tax nu fekke ay gi tatar ko way koor naroo ma way la kon gaañu du tatar ko laa ko dabaay way ñu ko way ma way ku noppi ma way man way koor naroo ñu ko fi gën a bëgg sëriñ Saaliw yeeway way koor naroo jugal taxaw magal sagal laa ko bàyyi ma te ni ku way ma way ku noppi ma way man ku way ma way ku noppi ma way man goleel te xàmme kii la defal ak ku dem ba fàtte nag li la fal ak folli koo ngi ñëw ni la dal abilaay ku dem ba xam li ma xam Seex Béthio cunu ga nangu biram Seex Béthio ak bëggam ci sagam ko waroon na loo. loola waral dafay nekk ndox. waaw gonde maa yi woo. ni ku bañ mu dem. ku nangu mu dem ndox. waay ko waroon na loo. Serigne Sali woo ko wan fa mu jëm. waaw gonde maa yi woo. ay Mbàkke Balla yaa jara way. waay ko waroon na loo. ay Mbàkke Balla yaa jara gan. yaa jara gan gonde maa yi woo. ay Mbàkke yaa jara wayal. Mbàkke yaa jara fital. Mbàkke yaa jara way ba dee. Serigne Sali woo. ay Mbàkke yaa jara way. loolu dëgg la. loolu dëgg la Serigne Saliou way ki nu teral mooy ki nu sagal lii lépp moo ma daal borom jàmmato loolu dëgg la loolu dëgg la ay waay ana ji teral ana ji mu sagal ana ji mu sigil yow ana Saliou xaadi sa loxo ca kaw loolu dëgg la. yaa jugal te sant ko nag. Saliou bi may na la sax. Signor bi may na la ndax la gaañ a bëggoon. Serigne bi yow la ko yow la romb ca tool ca toolu baay kulli cuun yàgg sama njëkk la booba la la yiti mbëri ba nga dawee ni ko dan topp watiir ba di daw ca garawi ku ne tey sa daw ya mooy sunu raw isma juub la ko wax ni ko ndaxte xam nga këram ngoon nga fekk ma fa ndeke booba day jëli ndam mani kaasu ataaya ba sax keroog sëriñ saaliw ba mu ko di ko jox mag ñay xëccoo ak teewul nde yow la ko jox benn cër fi woon sëriñ bi yow la ko jox mani lu waay mën a li fii de la ne ku ñëw jariñu ku ñëwul fooy jariñoo ndaxte njariñ fa ne gaay kaay leen ñu jariñu Cheikh Béthio cant yaa ko wane ana soppay sama waaja bas na fu ne ngir bëggul ku ni ñëw bilaay rek jariñu sa jaxate cant ak wane wu loolu yàlla rek ko ko xam réew mi bu bi sant ñu naan ma ngay wane wu jaxate yaa kay yay wane woo soxna Binta lii nga am ku ko am dëkke wax nanu wax gaañi wax leen ba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 nan ñu jatoo di wax bi yow fu mu dee jat di jat di jat na bay matar soxna Faati Jaxate yow si gil nga waa Jaxate sangu bay matar Jaxate yow si gil nga waa Jaxate yow soxna Faati Jaxate yow si gil nga waa Jaxate sangu bay matar Jaxate yow si gil nga waa Jaxate sangu Sëriñ Fallu Jaxate yow si gil nga waa Jaxate sangu Abdulaay Jaxate yow si gil nga waa Jaxate soxna Faati Jaxate yow si gil nga waa jaxate sama bay matar jaxate billahi sigil nga waa jaxate ba mu la nga doo fi naxati sa dooma jar waxate waa njaxate waa njaxate waa njaxate waa njaxate seen dooma jar soxna faati jaxate sangu bay matar jaxate ba matar ñu bax ñaanga njaxate ñu yiw bay matar ñu bax ñaanga njaxate ñu sell ñaanga njaxate kenn soxna faat jaxate waa njaxate waa njaxate waa njaxate waa njaxate seen doom ba matar ñu baax ñaa nga njaxate si sal ñu baax ñaa nga njaxate suñu sal ñu baax ñaa nga njaxate ñu sell ñaa nga njaxate kenn du soxna fa njaxate waa njaxate jeewa yow waa njaxate waa njaxate waa njaxate seen doom ngone damay dem ba njaxate jor damay dem ba njaxate e seeti wa jor damay dem ba njaxate roqe man damay dem ba njaxate sal ànd ak njaxate ñu sant borom njaxate waa njaxate waa njaxate waa njaxate seen doom ba matar soxna faati njaxate sangu bay matar njaxate mbaaku laan nga doom fi naaxati sa doom a jar waxate waa njaxate waa njaxate seen doom a jar waxate ay waay ba dewen ba déwén maa ngi nuyu mbokki taalibe yépp di jiital ci sama nuyoo sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru di ñaan yàlla suñu boroom bàyyil ñu ko fi ba mu yeggale naali Seex Ahmadou Bamba yépp ñu jël sunu nuyoo di ñaan sëriñ seex moom sëriñ saalihu Mbakke yàlla na ko fi yàlla suñu boroom bayi ak mboolem njabootuk sëriñ saalihu Mbakke gépp di wax ni man Serigne Salihu Jaxate bu Serigne Maxtaar Jaxate bu Serigne Salihu Mbàkke man de bu ma baasee war na maa baas ndax sama waajur wii di Serigne Maxtaar Jaxate ñépp xam nañ digganteem ak Serigne Salihu Mbàkke Baye Moussa Niang def fee ñëw ci suba ni bi ma yàlla bi bi yàlla dogalee bi yàlla defee ma juddoo ci loxoy sëriñ Maxtaar Jaxate dañ maa uuf andi ma ci sëriñ Saalihu Mbakke mu fëgg dëndëm daan ni kii sama bopp laa koy tudde kon man wàcc naa man sëriñ Saalihu Mbakke moo ma uuf tudde ma jëmmam sama waajur wii di sëriñ Maxtaar Jaxate liggéeyal sëriñ Saalihu Mbakke fii ci kaw suuf bam leer ñi toog ñëpp sëriñ Makhtar ku ne xam nga diggante ak sëriñ Saliou Mbacké fa sëriñ bi tegoon ca cofeel ga fa sëriñ bi tegoon ca doy ca nam ko doyee woon ci lépp lu bari ñu bari seede ko sëriñ Makhtar Diakhaté mii. wéetaayu sëriñ saalihu mbàkke rekk lay jooy waaye la sëriñ bi bàyyee woon lépp tey la raw kon ñoo ngi sant sëriñ maxtaar jaxate bu wér di ñaan yàlla suñu boroom bàyyil ñu ko suñu kanam amuñu bàyyi yu ko gën ci àddina yàlla na ko fi yàlla bàyyi bay yéene ñun ñii di ay njabootam yéeneem lépp ñun ñu yeggalee ko ko te mu fekk lépp ci barke Sëñ Tuuba Sëñ Mataar Jaxate taxawu na njabootam taxawu na ay rakkam taxawu na ay soxnaam taxawu na ay xaritam taxawu na ay mbokkam man leer na ma ay soxnaam sax mën naa ni seen kër yi waajur Sëñ Mataar a ko tabax mooy leen tabaxal seen i kër waajur ñoom ñëpp moo leen tabaxal seen i kër loolu man mi la leer ma xam ko toppatoo njabootam sëñ Matar nee na sama njaboot gi li may sant yàlla soxaloo ma lu ñu may jox de xam nga lan lan lan laa bëgg ci ñoom nañ ma xamal ne ma naa su ma tëddee ak fu ma mën a nekk rek nañ ma xamal ne ma sa njaboot gi ñu ngi ci njub buñ ma jox dara ñoom waaye ke jug jub rek sama xol sedd na loolu rek doy na ma ci ñoom kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax suñu borom bàyyil ñu ko fi ci barkeb sëriñ Touba. man Salihu Jaxate nag sëriñ Salihu Mbakke ci ak nekkam fi moo boole woon ak Moustapha mu Salihu Mbakke ñam yónni woon ñu woosima woon ca ndo ca daaray Touba Xelkom lañ ma woosee sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ak Bàcc Touré ñi di ma dégg du ma leen waxal lu amut ñu ne ma kaay wuy sëriñ bi ma ñëw sëriñ bi yónni Abdoul Ahad ni ko demal nga wool ma Seex Moustapha moom sëriñ Saalihu Mbakke sëñ Abdoul Ahad wooye sëñ Moustapha moom sëriñ Saalihu falaa yendu koroog sëriñ bi woo ma woo ko ni ko Saalihu mii bis tey boole naa la ak moom ak muritoom na ko yeggale ci yow ma nekk daa ma nekk sëñ Saaliw baas bii ngeen gis baas naa ko ca biir kër Sëriñ Moustapha moom Sëriñ Saaliw Mbàkke di ko feccante def naa ko ay yoon te biir kër ga ko def sëriñ bi boole maak moom sëriñ Moustapha ma boppam buy woote xel kom danañ ma woo bu ñuy xolli gerte gi danañ ma woo ndax damaa bokk ci njabootuk Cheikh Moustapha moom Serigne Saliou Mbacké muy sama sëriñ man su ma bokkee ci Serigne Makhtar Diakhaté moom Serigne Saliou Mbacké daa am kàddu yoo xamante ni jërut bëgguma ko sax mën a leeral fii waaye su ma bokkee ci moom Serigne Saliou Mbacké jëlati ma uuf ma boppam tudde ma jëmmam jëlati ma boole maag simin si ba Saliou man de xanaa Saliou Ndiaye wàcc naa kon sant naa yàlla sant sëriñ Touba sant Cheikh Saliou Mbacké sant Cheikh Moustapha moom Serigne Saliou Mbacké am na bis boo xamante nii damaa ñëw ci Serigne Saliou Mbacké di ko Mbacké damaa may damaa bëgg nga jox ma lu ma jënd kamoot ndax damaa bëgg kamot bu ma def ay téere ak sunguf meew ak suukar xeet yooyu sëriñ bi ni ma sëriñ Saliou ci boppam ni ma Saliou yow de da ngay ñëw di laaj xaalis rek te xaalis bi say morom rek ko fi indi ma ne ko Mbàkke sama man de ma nekk say loxo moo tax mën ma ko andi waaye sama morom fa nekk ba ko fi andi bis moo fa nekkoon di ko andi sëriñ bi daal di jël kaala gi taf ci gémmiñ gi daal di muñ daal di moo ni xaali am na fulla man xaali la ma daan wooye xaali maam xaali jaxate daal ni moo ni xaali am na fulla de daa di yëkkati ca jamono jooju fukki junni jox ma ko boobu fukki junni mën naa defar kamot moo tax ba ma demee Espagne ñaar fukki junni yi ma njëkk liggéey sama baay bii laa ko jox ni ko joxal ma ko sëriñ bi addiya nee ko fi sama moroom yi nekk bi ko andi tey fi kon ñun njaboot sëriñ Saliou Mbacké doon tey nag di bisub sant Cheikh Moustapha Saliou bis bi bisub cant la sant ma Moustapha moom Serigne Saliou Mbacké ci jannatul maxwa tey bisub sant la moom moom mbaayuñu politique ñu wutiwuñu jotaayu politique jotaayu politique su ma ko doon woote fii fii kenn du fi xaj ci àddina loolu moom na leer loolu moom politique moom ma ko doon woo moom maire mbootaay bu nekk vingt car quinze car laa lay jox nga indi mbooloo mi ma dem ca fa mu xaj waaye lii sant Serigne Saliou Mbacké la moom laa wootee man wootewu ma politique sant laa woti kon nag jàng nañ fi ay kaamil jàng fi xasida jàng fi ay kaamil yu bari ñoom Ahmed Siñaan sëñ Abdoulaye Jaxate sëñ Xaadim Silla ñëpp fii lañ nekk tey jàng alxuraan ji ndax dañ ak cantkat berne la ak alxuraan ak xasida kon loolu def nañ ko fi di ñaan yàlla li fi am ci ay tawféex ak i xéewal ak i ngëreel yàlla na ko yàlla sut ci senegal yàlla na am jàmm yàlla senegal am jàmm yàlla na am jàmm ci barkeb Serigne Touba. kon nag sant moom cant la may sant bu baax délégation bi ñëw Xaadim Diouf jiite ko. te Samuel Ahmed Sarr sama digg ak moom yaakaar naa ni képp ku nekk tuuti mbaa nga nekk ci diggante ak Samuel kon sama diggante ak Samuel muy sama kilifa di sama jëwrin di sama waajur di sama xarit nu bokk sëriñ Aliou Mbacké baas bii baasal naa ko sa bopp baasal naa ko Samuel Sarr ndax moo ne ci xolam ndax sëriñ bi rek lay dund loolu laa gis ci moom loolu la ma wan loolu ñuy waxtaan bu ñu toogee di waxtaan waxtaanam lépp sëriñ bi la génnu sëriñ bi njabootu sëriñ Saliou Mbacké get ñu gis ci moom mu ci doxee noo xamante ni ba tey wax dëgg yàlla nag gis naa ko ci moom mu leer te ñi toog mën nañ koo seede njaboot Serigne Saliou Mbacké fi toog fii muy korité muy tabaski muy màggal bu ci nekk dina ut addiya jaarale ko Serigne Saliou Diakhaté yónni ko ci njabootu Serigne Saliou Mbacké gépp ba mu daj kenn du des muy événement yi ma wax yëpp ba tey bam ko tàmbalee ci jamono Serigne Saliou Mbacké ba tey bay sax te ci la ne dongay sëriñ Saali Mbakke yi tam xarit ak lu man ay nagam lay jënd ab li tas ko ci daara yi kon Samuel soppiku soppiwu dara ci bi sëñ bi bi sëñ bi ak bi ak bi sëñ bi jógee saay lam nekkoon ba tey kon ba nga ca kon bis bi bis bi bisub seex Saalihu Mbakke la kon Samuel bu bekkee ci njaboot sëriñ Saali Mbakke di sama baay mbokk njaboot sëriñ Saali Mbakke danañ ko sant danañ ko gërëm nam ko daan defee rek at mu jot da koy yokk jëf ji may jëfal ci bis bii at mu jot dana fu ma yam ma ne ko fii nga yam mu dolli ko kon sant naa ko gërëm naa ko di ñaan yàlla suñu boroom defal ko jàmm ba projet yi mu nekk yëpp suñ boroom gën koo yaatal te mosal ko ba mu yeggale lépp ci barke Sëñ Tuubaa maa ngi nuy délégation boobu bépp maa ngi wax ni Serigne El Hadj Bambay maa ngi koy sant di ko gërëm Moustapha Lo Junior mii moo ko fi teewal di wëllëreem di xaritam teewal fi soxna maam Faati Siiri Mbakke di sama xarit lu ma nekk ma nga ca Moustapha Lo Junior teewal na fi Seex Mbay moom Sëriñ Saalihu Mbakke Seex Mbay moom Sëriñ Saalihu Mbakke nag sama xarit la lool ndax maa moom ci daara ji sëriñ Saliou ca ñaareel moo ñu boole woon ma ko daan dénk sëñ Matar Jaxate mii mbiskit mi ma daan jox ak meew suukar si Cheikh mbay laa ko daan dénk mu ma ciy noggatu nag dama jamono jooju dama jaral noggatu daaw ko teg ci yoon ndax saa ko ci laajee mu jox ma ñaar lekk fukk moom noonu la daan la daan doxee ak may sant bu baax Dora Gaye Dora Gaye mouvement xippil xool maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bisub Serigne Saliou Mbacké bii jàpp na ci. jàpp na ci bis bi maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla na ko Serigne Saliou fay maa ngi sant bu baax soxna Daba Diouf mii ñëw fi teewal fi Gallo Ba ministre ga Ba bu Mbàkke Bawal ànd ak forte délégation maa ngi koy sant di ko gërëm soxna Daba Diouf maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax nuyul ma bu baax DC Galoba nga ni ko ñu ngi koy ñaanal Serigne Salim Mbacké mi am fay yàlla ñu ko fayal. Serigne Abdou Karim yónnee na fi diw googu ñu naan Binta muy diw gu bari maa ngi koy ñaanal bu baax diw gi fi mu bëgg mu yegg fa yàlla fa yegg. maa ngi. nuyu ñu teew général Diène Gueye basiiru Diagne ñëw nañ teew fi di ay chargé de mission de la présidence Serigne Djili Niang kenn Modou ba mi ngi fi teew soxna Mati Sanel Sall Ndiaye ñu ngi la yóbbee ñu ngi lay yónnee ci ak cant santal ñu ko gërëmal ñu ko ni kaar moom Serigne Saalihu Mbàkke fi la fanaan démb àndak ak man bis bi démb ba tey mi ngi fi te du dem Dakar mukk te liy jeexul ba ñaanalante jàmm Moustapha Lo Junior maa ngi koy sant santu boppam ndax bis bi ñor na ko dakaar la ko àndak man ndakaaru la ko ànd ak man bis bi ñor na ko lool maa ngi koy sat di ko gërëm maam daam loo ak Pape màgget maa ngi leen di sant ñoom ay ndaw lañ yoo xamante ni mini ministre Antoine lañ fi nekkal di ko jàppale ak Moussa mbay yoon woowu ngeen jaar yàlla na suñu borom defal ndam di sant bu baax baay Birane Gueye moom Serigne Saliou Mbacké di sant bu baax Baye Fallou Diakhaté di sant bu baax sama xol daal sedd na sama xol sedd na ci ni ngir àndeek man sama bis bii nit amul lu dul bisam di sant soxna Ngone njaay mii di sama soxna maa ngi koy sant di ko gërëm di sant bu baax soxna Dior Sarr maa ngi koy sant bu baax bis bi ñor ko lool lim fi indi ci mbooloo kenn xam nu toll soxna Rama Mbàkke su ma ko tuddee tudd soxna Muslim Mbàkke tudd Maane Sarr tudd xaddi baara boo leen limee wax dëgg yàlla musóor bu ngeen fi gis mu xonq rek ñoom moom lañ àndal. di sant bu baax soxna Wali Kebe soxna Wali Kebe ñu ngi koy sant bu baax a baax fonk na bis bi njor na ko. xam naa ni daal man Salihu Diakhaté bokk ci parti libéralisme social sénégalais bu Samuel Ahmed Sarr maa ngi sant mbokki taalibe yëpp di ñaan yàlla suñu boroom defal ñu ndam ci réew mi ak ci bitik réew mi xaadim jinne borom jinne yi maa ngi koy sant di ko gërëm bis bi da koo ñor lool Serigne Moussa sekk jóge ba Ndakaaru ñëw Moussa sëñ musa Seck moom moom moom moom moom ab seex la ndak xel comme ñëpp xam nañ lam xam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moom taalibeb Serigne Saliou Mbacké la maam seex Anta Babou di sama rakk di sama xarit maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. soxna moomi Kebe moom Serigne Saliou Mbakke. maa ngi koy sant bu baax sama xarit la lépp lu ma mës a nekk rek ànd na ko ak man soxna moomi sant naa ko gërëm naa ko délégation bu mag teewal nañ ko dama bu baax Serigne Djili Fall moom Serigne Saliou Mbacké Serigne Djili Fall bu kees Djili sama Djili sama xarit la sama nit la yàlla boole ñu te lépp rafet. xam naa ni daal bis bi bisub Serigne Saliou Mbacké la maa ngi sant sama waajur yi kulim rek juum kulim juum maa ngi sant communicateurs yi. ci njiitul Cheikh Mbacke Dia maa ngi sant communicateur ci njiitul Cheikh Mbacke ak Tamsir ak Fallou Ndoye ak gars yi boppam yëpp sant naa leen gërëm naa leen mbis mi ba mu tàmbalee ba tey noppaluñ tooguñ di sant Serigne jaay Ndiaye bu Xelkom Serigne Saliou mooy nga dakkante la sa bopp maa ngi koy sant di ko gërëm xam naa ni daal. sant naa bu baax sama xol sedd na yàlla nañu suñu borom defal ñu teewee ko déwén ci barkeb Sëñ Tuubaa jàngoro ju fi nit indi yàlla ko yàlla saafara ci ji seex Saliou Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh